di am mbégte bu baax a baax tey bi ñu taxawee fii ci commune Ngekoox monsieur Pape Songo Diouf di maire ñu ñëw ànd ak sunu kilifa sëñ Mouhamad Lo ñun jamhiyatu innamal muminuuna ixwa manam mbooloo mi nga xam ne dañu ànd yàlla na ngeen ànd jullit yëpp dañu war a fa aslihu bayna axawaykum tax ñu bi feebar bi lawee ci àdduna bi ba egsi suñu réew ñu arrêté lépp luy dox ñu ne nañu ut ndimbal jamhiya bi ci ndigalu sëñ Modou Lo man ma nekk président bi ñu génnee suñu ndimbal indi ko mooy kees yi ngeen gis ñu ñëw daje fi fekk mairie bi ñoom it oo mboolem daara yi ci dëkk bi indi seen ndimbal di leen ko jox ma ñëw ngir ñaari taxawaay taxawaay bu jëkk bi bi may ñëw loolu laa foogoon mooy ndimbalu innamal muminuuna ixwa ma ñëw maire oowaat ma ne ma commune bi indi nañu ndimbal pour mboolem daara yi nekk ci dëkk bi ak woy néew doole yi kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw pour jël si lii pour tasaare ko ci réew mi ñu xam ne fu loxoy waay dem ci wàllu ndimbal loxoy campement dem na fa. génnee nañ trois cent mille jëndee ko kees yi kees yàlla taxaw. ay omo ay madar yooyu yëpp ay zel pour pour jox ko maire bi mu boole ci li muy ndimbal yi jox daara ñu néew doole yi set ndax cet bu neel islam ala nasafa, set gi mom ku ko wax da nga sawar ci loolu ndax l'islam ci ci set lañ ko sos kon yonente bi na kon yéen ñëpp na ngeen set fatta na si set leen tey euh, bés la bo xamante ne ci réew mi bésu mbégte la fii ci Ngeko lu tax ma ne bésu mbégte la ñi nga xamante ne ñooy jamaa jamaa bi nga xam ne mooy innamal mu'minuna ikhwa nga xam ne imam ratib mu ngi fi ki toogal waa Kër Sëñ Touba mu ngi fi ki toogal waa Njaasaan mu ngi fi ki toogal waa Tiwaawan a ngi fi ki toogal baa Ñas a ngi fi ñu toogal kuréelu diina yëpp ngi fi Ibaadu Rahman ñëpp ngi fi tey ñu ne lan danoo andi woon benn ndimbal ndimbal li lan la ndimbal li ñu ngi ko jagleel ñi nga xamante ne mooy commune de Ngexoo te ku ne commune de Ngexoo tudd maire ba ñu jël ko taal seen oto jël alal ju bare bare baree bare jënd ko lii ngeen gis moo xam ne ñu teg noon ko nii tey ci wàllu lan wàllu saabu wàllu cet ñu xam lu ci cet lan la kon am naa yaakaar ne ñooñu bu ñu defee loolu tey ñun si sunu commune Ngexoo bi ñun duñu am lu dul mbégte si ñoom kontante si ñoom te bu xool naa télévision yi xool naa fépp tey mais jamaa bu mel nii joxe lu mel nii gisaguma ko gis nañu sax imaam eh, ki xalif général de di joxe xalif général de Tidiane joxe xalif yëpp joxe nañu mais jamaa bii li ñu def tey am naa yaakaar ne tey ñun Ndiakokh change bi nu am moo ñu am kilifa diine yu mel nii kon dañ leen di ñaanal ñu yàgg fi te wér di leen wax ne ñoom tam seen ñaan yaakaar nañ ko ci dégg ngeen président na ma waxee démb ñu ñaanal président ñaanal réew mi ñaanal addina bi yëpp lu tax ma bëgg ñaanal addina bi yëpp itam mooy bu addina bi muccee ñu mucc boo xam ne nii alhamdulilah rabil alamin te li ma gën a neex sunu imam yi fii respecté nañu consignes yi tey jumaa yi tëj nañ ko ci li woon ci tey lu ko war a mooy lan respecté consignes yi pour bañ biñ bi tasaaroo kon ñun nga wax sunu chance ci imam yi loolu la kon ñun da ñu na nañu satisfaction am nañu mbégte sunu imam kontaan nañu sunu imam te xam naa dëkk bu am imam mel ni dëkk ba jàmm fay am te ñoom ñu ngi ñaan jàmm ci dëkk bi ñu ngi ñaan jàmm ci mi ñi nga xam seen i yi toog nañu ci kër yi ba xamante ne ni kon seen gëm yàlla gis nañ ko ñoom respecté nañu nit ñi respecté nañu consigne président kon suñu imam gàcce ngaalaam ñu ngi leen di sant. waaw xam nga au départ ñun dañu jëloon lu tolloog ay gel ñu jox ko ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy wàllu santé ñu jox santé jox marché bi jox gare routière bi jox gendarmerie jox sous préfecture yi ci wàllu gel yi commence woon nañ ko valeur un million quelque def ko léegi nag ñu ne comme daar yi président dafa ne da daar yi toog. te ku ne daara wax ki lan war yalwaan bi te yalwaan googu tey am alhamdulilah rabil alamin bu xale yi génnee dañuy exposé wu ñun nag ñu ne fii ci mairie bi ak commune bi ak conseil municipal yëpp ñu d'accord ne nañ génne juróomi million ñu jënd ko ay ceeb ay dund ay saabu nga xamante ne nii danañ ko jox ñi nga xam ne ñoo waa waa daara yi ñiy jàngale alxuraan dañ leen war accompagner ñu xamal président ñun fii ci Ngexoo li nga commencé ñun danañ ko def fii ci Ngexoo commencé ko ndimbal li nga xamante ne moo war a ñëw ci askan bi ñëwagul mais ñun ndimbalu daar yi anticiper nañ ko pour jox waa daar yi ba nga xamante ne ni euh, parce que benn benn euh, ci dans l'armée dañ ne un qui fait tout le monde kon nag ci daara yi kenn ku feebar mën naa indil problème ñëpp ci biir moo tax pour aar daara yi bokk na ci génn lu toll ni joxe ko pour xale yi dootuñu génn yalwaani ba yàlla def musiba bi nga xamante ne ko fi ñu génne ko fi barki démb itam jël na nañu li nga xamante ne nii mooy pompe dëkk bi ak service d'hygiène ñu pompel ñu dëkk bi yëpp pomper marché yi pomper dispensaire yi pomper fi nga xamante ne nii mooy maaru boucher yi pomper fépp ci xam ne ak fépp mairie bi loolu tam avancement la ci dëkk bi loolu war na ne de guerre bi nga xamante ne ñu ngi koy geer ak noonu boo xam ne ñu ngi koy doo ko gis parce que noonu bu noon noonu boo gis neexut la xeexal mais noonu la boo xamante ne aussi noon bu wër addina bi la loolu nag booy xeexal moom euh, am naa yaakaar ne noonu kenn du ko xeeb li président wax ñu toog ci kër yi am na solo ñu sore am na solo ñu mainte distance am na solo loolu moo tax tey jii tey guerre bi imam yëpp ànd ci conseil municipal ànd ci dëkk bi ànd ci kon loolu wane na ne alors ñun si ngexoo nekk nañu benn bokk ndey bokk baay di dóorandoo di xeexandoo amul opposition fii amul kii fii la far tey amul kële kële la far ñun ñëpp ñoo bokk joxante loxo pour xeex lii tey gis ngeen ñu fi taxaw yëpp tey am na fi opposition am nañu far feneen am nañu far feneen mais loolu yoo gis ñu ko tey lu ñu gis mooy intérêt ngexoo ñu ànd ci ak ñun ñu xeex pour xeex feebar bi nga xamante ne nii dugg na ci àddina bi te dugg na Sénégal te incha allah xeex ko rek président rek mënu ko te dégg ngeen président lu am solo lu mu génn démb def ko ci askan bi loolu wane na ne alors ñun ngexoo demuñu desuñu ginnaaw ci le président woote. ñaata daara ngeen fi am. am nañ fi lu toll yi nga xamante ne nii daara yi dañu ëppante nag na daara yoo xamante ne nii euh, bëri ñoo ëpp ñu beneen daara yi mais li fi ëpp li fi ne defe naa sax war na ëpp trente daara mais li ñu recensé defe naa ci yu mag dem na fanweer te xam naa bu si Maam Mor loo nekkoon léegi dana ma ko dee parce que moom moo chargé ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu recensement yeeg.